inondation yi de ana Basiru ah eh? ana l'ingénieur le grand ingénieur Murit mbaqiw lan la fas yéene si kii bi le milliardaire ingénieur ah eh? mbaqiw eh? ah waaye mais Basiru euh, euh, Muntaxa palem buñ ko tabaxal Dakar xanaa fas dina ko fas yéene jaay jël xaalis bi dugal ko si euh, viabilisation Touba bi Bassirou këram yu bëri yu mu doon jooy naan loolu lay rëccu c'est le moment de le moment def action boo acte mouride pour ne pas dire acte acte acte sénégalais voilà acte mouride le don de choix le don de choix ah, ameen am leen kay nu déglu kaa nu déglu ay eh, facebook dugalal ki facebook dugalal ki yalla du dugal kenn ajana a ajana da sa sëriñ a en tout cas en tout cas yàlla day mom ajanaam léegi nag sëriñ mom buy dugal ajana mom, na fexé ba mom ajana si ala sëriñ bi dugal àjjana na fexe ba moom àjjana si ay Facebook ubbil ma kii waay ma déglu kii e waay accepter sama demande waay duggal nga ñëw leral nu son nen lool boobu ba léegi ñoo ngi xaar ay leral je sais éperdivement manique que tu vas venir nous raconter une autre merde mais c'est avec plaisir que je veux l'entendre voilà c'est avec plaisir je sais éperdivement manique que nous wax luñ fi déggul ba paré ah nous wax luñ fi déggul ba paré mais c'est avec plaisir que je veux l'entendre. Ah, c'est avec plaisir. connexion baaxul de xaw ma foo nekk xaw ma looy lijjën sa connexion baaxul si yow na nga connecté wu ñëw dugg ñëw expliqué nu waaw ah. en attendant daal lu ma koy waxee mooy waaw ah nee la yàlla na yàlla musal si dem bitim réew ba pare di chômé ah xamee woo leen kanamu chômeur pikinité kanamu chômeur nga xameewul woy sawa day woyaayooy de ah eh, nee naa ko kanamu chômeur nga xameewul de billaay wallahi lu wóor ba wóor daal chômeur bi am na connexion bu doy de voilà man de nee naa la su la neexee de waaw taf ma fu ne soo foo foo yóbbu Moussa Camara chômeur la ne la ree ne la ree de loolu de xool bu naqaree la koy wax waaw waaw xool bu naqaree kay def de xool bu naqare bi léegi gi defaata chômeur waaw waaw chômeur xam nañ leen ah chômeur yi de ñoom ñooy ñuy raw ñuy rawale quarante cinq milliards quarante cinq milliards lan moo wara ñu koy rawale musu noo am salaire da leen tiital Sumeri lende ah en tout cas sumeri day fa nek ay milliardaire teud musuno ligay motax nak man mom kuma fekk fi ma tong beuguma khas sumer c'est parce que xolo sa serigne ah en ah ah ah ah, man sama connexion moy lol de connexion bi rek la lay wax wala te neena la telephone bi rek rek rek rek rek rek may live voilà hein jurom ben wéru salaire la de juróom benn weeru salaire la Sénégal téléphone bi rek nga may xoolee nii sa xol bi di jeex voilà chômeur du ko laal de hmm. lii du techno de aha image bii ngay gis ni qualité image bi ak bopp bu ñaaw bi nu muy génnee nii ba nga mën a gis triple front bi du techno de ah day clair nag du techno aha pour muy clair ah mooy loolu de saa waay nee na j'utilise la connexion Orange 4G saa waay loolu yow dama uti Wi-Fi 4G yeeg jamono jii di doxul xëy si kii suurul 4G yi Sénégal surtout ma jamono période comme suurul du dem du dem du kii bi dafa xiif suurul hein saa waay ah, pikinité pikinité yaa yaa yaa ngi jooy billahi ah, waaw nee naa la chômeur bu am connexion juróomi at ah loolu war naa yee war naa yee dof de ba pare nelawal nit ñi ah! kaay nga wax nu si ngelawu démb bi màggal gi màggal gi ay waay noo ko doon kiiyee départ gi pourtant avant màggal gi du nii nga aaloo woon de du nii nga doon aaloo du nii que de ayo Moussa Kata Sanday mënoo fexe ba dun màggal waaw yow moom ah jërëjëf Bamba ah kii ne ah waxoon naa la de ah waxoon naa la de ne woon naa la booy ah man ay laajte laa laajte di xaaray tontu soo tëbee nag di defanteeg man nag si ay waxu xuccoo màggal aca nen sa dem yàllaa yore ay bagaasam te nag di ko gis nawet bi moom <laughs> mooy loolu kon ay ah, yow kat sa su nekkee man la ah, ah, man moo amul problème les mamans là on peut tous en wante mooy waa léegi màggal gi dem comment ah waaw léegi yéen ñëpp ñu màggali woon xanaa di ngeen gore des Touba jàppale waa Touba si as bi da ngeen gore nag ngeen gore des leen Touba jàppale Touba si as bi naan ndox bi kacc mais xam nga non booy Dakar yi lii rek na neex rek de su neexee ba pare nu takkaat seen i bagage dox voilà waa Touba rek ay kaas ñoom ñoo ñu yónnee vidéo ma yàgg naa ko nee naa leen su duloon les natifs de Touba ñuy dund Touba di ko dund ñun dund si jot voilà boy Dakar ak booy dakaar du ñuy nëbb lii lépp soo ñëwee dina la jërëjëf lépp nice na lépp baax voilà lépp baax na taa ay xéewal la ki ngëneel ñëw lekk puub dëkk bi yëpp xoolal rombaat noonu bàyyi leen ak seen tolof tolof dem Dakar xoolal solaat seen i pin suba balaa deux xoolal balaa semaine prochaine concert waali concert dina am maa leen ko wax xool leen balaa semaine prochaine concert dina am ça va être les ñu nekkoon màggal ko ñoom ngay gis foofu noonu ni màcc ci voilà fàtte leen c'est parti wax ngeen fi ne taluñu dara ñoom coonawu àdduna nee naa leen moom moo ñor ñoom nay neex neex-neex bi moom leen mooleen si ñoroon suñ ko dundee ba pare ils non fini voilà ñii si bëri màggal gi nii pare nen si nii ñoo nga sa programme waal ya léegi pare nen ñoom ñëpp ko sa waaw waaw xolal doore nava waaw màggal gi jàll nen ko si jàmm alhamdulilah xolal macha allah jërëjëf ki léegi kay moom la na tous voilà dun voilà yéen a ngi moo leen ñor Touba yi nangam ren de na yéen ñëpp wàcc ngeen fa nee neen y'a trois millions de personnes trois millions de personnes ku nekk na jàpp peel ku nekk na jàpp peel benn paan bu fekkee dëgg la balaa noo génn foofu noonu as ndox bi gas bi léegi ndox bi romb nu daal di ki fa la leen di rombaat wax gee bëri wax gee bëri rek fa la leen di nu duggusee noonu la nii génnee bàyyi fa puup yu bëri voilà nu nu duggusee noonu la ñuy génnee suba sa waaree ngeen leen di gis ah man fii laay toog di wax du nekkee du ngay ñëw si tontu yi du nekkee nu wax acca nen defante nen woonante suñuy ñàkk faydaak suñu con ak suñu imbécile man de man kenn mënu maa teree reetaan ak kaj-kaji fii laay je m'amuse nee naa la je vois à, non mooy sama cinéma sama Netflix man de dee naa la lu xew si dëkk bi ça me tue moom laay toog di enjoy nii comme ab maat faka kenn mënu si lenn waaw à, kenn mënu si lenn kenn mënu ma ko ter C'est extraordinaire, c'est trop magnifique. Voilà. Hein? Ah non, 3, hein? 3 millions de personnes. Hein? 3 millions de personnes ñu yekk si non non gore liggéeyal sëñ bi du sëñ bi lañ ñor dëkk bi bëgg nañ ko lu ñuy woote lépp di si fëgg seen dënd yi mu jaral leen saagaa ki wax ñëpp keeki nangam hein dëkk sëñ baa ngi noonu non déwén nar ne noo demaat na ku nekk ne waxuma la sa peel na ku nekk gàddu kuddu

plus sëñ beeg gaayam ñoom ñëpp ku nekk su taqee yaa ñan si taq c'est mais wala wala lu ñuy xaar malaaka yi la ñuy xaar ñu ñëw naan ko wala quarante cinq millions milliards yi kay tuubaa sa kanam ah leen wax rek waaw ah, naakaa sa sa eh, di la vérité ah voilà comme que nag ñun nanguwunoo jaakaarloo waxante dëgg du ñuy fenante ki di yuuxu ak di tëpp ki fëgg dënn waaw ah, permettez moi aussi di leen tàccu yeah man maa ngi seen gannaaw di tàccu ಟಾಂಕ್ ಟಾಂಕ್ ಕಾಲ ya. ಗಂಡು ಮಕೊಟ್ಟಾರೆ ಯಾ ಗಂಡು ಮಕೊಟ್ಟಾರೆ dëkk baa ngay ngelaw taa inonde may wax ni tëb nan waaw mak bu karab mak ki manala yen mak mu karab bu ngeen di jema wax di tekkale fexe len ba ngeen won ma inondation fof wala fépp ngi taw di ki mais inonda fexe leen tamit ba ngeen fek fa kolal 45 milliards d'assainissement yu yu réer c'est tout dekk yu ngeen di tekkale kenn neewul ni ki mais fexe leen ba mu taw sebet ngeen wane inondation eau stagnante wa ilaa ngeen génnee ministre wala ku chargé wu wala ay milliards yu nu dajale xaalis bi réer voilà loolu foo fay wax ji voilà euh, catastrophe naturelle wala keek naturelle ça sa ça am nga fépp lay am voilà fépp lay am mais nag léegi les résultats lool toujours wax naa ko na la léegi suite bi mooy wax ñun fu fu muy mujj ñu am catastrophe naturelle double catastrophe naturelle leen am voilà nous avons am catastrophe naturelle plus des personnes catastrophiques naturellement voilà et ça devient double catastrophe naturelle De l'Union aussi, une catastrophe naturelle les personnes catastrophiques naturellement nous, noonu jëlaat xaalis bu pour catastrophe naturellement catastrophe naturelle bi un rawale catastrophique naturellement c'est pas si on m'a compris quoi j'ai essayé de le mettre en mode catastrophe voilà et ça le problème et ça ça devient double catastrophe ngay ñëw fekk problème bu nekk fii gars yi di régler problème bi dajale xaalis pour régler problème bi mais ku ñuy jiite sax moom pour mu ñëw régler problème bi nu jox ko xaalis bi moom tamit ñëw nekk ab problème si biir problème bi ngir dee rawale xaalisu problème bi. yaa ngi comprendre jaaru problème yooyu leen yor xeetu problème yooyu soo ko waxee na gars ne kenn du ko fi wax parce que ku ñu jiital mu wala dajale xaalisu problème bi wala ñëw régler problème bi sët la yaa ngi comprendre sët la quoi lu mu def baax na léegi soo ko nee lu mu def baax na amul problème wante sëtu sàcc la numère sëtu sàcc la c'est biir sëti daam sëtu caga ay sëtu pédophile sëtu góor jigéen ak sëtu sàcc waaw ñu noonu de quarante cinq milliards quarante cinq mille milliards kenn bëggul taxaw pippe moo fu mu jaar waaw quarante cinq mille milliards mën na réer nii ni ni devant les nii non quarante cinq mille ba ay saaku xaalis la loolu mën na réer nii si kanamu nit ñi kenn gisul fu mu jaar kenn xamul waaw ah, wante gars yi cotiser nañ ko après du jow de dëkk bi dafa ndóol le pays xolal waaw le pays mooy loolu dëkk bi ndóolu nit ñi dañuy toog kaa xolal cotiser quarante cinq mille million teg ko si tali bi nii mu réer nu jugaat di cotiser dëkk boo mënul ndóol dëkk boobu mënunoo toog ne dafa ndóol dëkk boobu mënunoo sax xalaat ni ko dafa ndóol dëkk boobu noonu tout va bien tout va bien hein donc wax gi mooy loolu maa ngi waat nii de ñëwati naa nag voilà ana ana ana ana ana ana gaay les mécontents kek nangam yaay kon expliqué ki di kii mooy loolu de nee naa leen de nee na jamono ji ba fii duñu génnaat duñuy xaar fu ñu jaar pour mën a saaga raconter seen merde voilà démb nag moom dawal naa leen yërmande si màggal ah saaga ngeen fa doyal vous avez raconté votre merde hein avant avant comme nous ko amee eh, kii eh, Ivoirien yi di waxe avant avant vous avez raconté votre merde hier voilà il faut venir vous allez prendre pour moi aujourd'hui là c'est pour moi ah, il n'y a pas plus fort que Dieu Dieu Dieu et voilà lui avec son vent ils ont voulu défier ou aïe défier ou et voilà lui ou avec sa pluie ou il a plu deux fois. Ils ont pocho pocho. Il a plu trois fois. On a besoin d'une pirogue. Et quand il y a le vent, on va fuir. Ah, eh, eh, eh, Zouglou et nous. Ja. Ah. <laughs> Ah. Ah. saa waay nee na tooñ baaxul Abdou Aziz billaay tooñ baaxul moo taxit de e Abu jaa ngi mer nee na ko est-ce que tu as participé à la cotisation sinon ça ne pas man laay man day tey naa leen su ngeen lekkee dërëm ah su ngeen lekkatee sama dërëm voilà mooy loolu man sa cotisation ancien gloire la laa bokk Nous, on a, a fait partie des cotisation de l'ancien gloire. Ancien cotisation, oui. Voilà, cotisation café, oui, non, ngeen doon naan. temps yi ngeen di jàng doon Baay Faal. Yaa ngi comprendre. temps yi ngeen di jàng doon Baay Faal, doon boy si suuf di xool. voilà ñun ñoo nekkoon gars yi si kaw cotisation boobu leen bokkoon voilà maa ngi koy rëccu nag dof moo leen def dof man amaana ni que j'ai participé à te rendre fou voilà naan nga si café yu ma cotisé mu dof loola yaay comprendre moo tax tey nga taxaw fii di ma wax ay waxu dof xam nga di raconter ay racontement wu dof voilà ak expliquer explication wu dof voilà boobaa nag soo paree waxu cotisation da ngay dem nga laaj Serigne Touba ndax participer na fa yàlla ba yàlla di defar àdduna ki sàq àjjanaam di sàq ruu yeeg yooyu ndax moom cotisé woon na bay ñëw di fayee ko ruu jàmbur yi yaa ngi comprendre voilà bay fayee ko àjjana bay am lu muy expliqué vraiment nga laaj ci cotisation boobu soo paree foofu loolu nga daal di ñëw nga lijjanti ñun mom comme lu koy waxee rek looy la l'eau est venue pour nous sauver. Il est là. Voilà. Anakiru Père Roel. Voilà. Kiru, Kiruku Bas. Là, là, non. Kiruku mon Bass là. Voilà. Père Noël, Père Noël, Kiruku Basiru. Voilà. Légui Basiru moi Kiruku. Parce que l'oumé daw. Basiru l'oumé daw. Ak l'oumé li jentek ndox bi. Yalla rek a xam. Voilà. Basiru légui gens la ñuy nommé Kiruku. Voilà. tout bas. C'est Touba sa kanam ak assainissement Une affaire yeeg nangam Qui comprendre. Voilà. Milliards yi di réer muy taw. Lu taw ah voilà léegi et Kirikou voilà l'histoire est réglée Kirikou Bassirou hein Père Noël Père Noël Mbake ah Père Noël Muntaxa Mbake voilà aha uh-huh. mm-hmm. léegi euh, lutin lutin Kara lutin lutin Kara Mbake hein uh-huh. Kara moom comme ap lutin vous le comprendre eh eh, eh eh eh eh eh petit couillon que vous êtes là ba léegi léegi du ngeen yeew da ngeen di defarte kaay leen fii ngeen may fekk nee naa leen vous avez tapé sur l'os du cochon billaay sekk ngeen kooku dëgër bopp sekk ngeen kooku dëgër bopp non yéen yéen nee naa leen par A par B par A par B yéen rek kay ñëw si tontu yi yéen rek kay wàcc non yéen xaale ba ma parek yéen voilà baa nekk ba ma parek yéen eh eh eh <laughs> alif laam oxo Aliou Sidibé Aliou Sidibé kenn du moom Pikirité Pikirité yaa ngi jooy ba tey waaw ah. ah, kay waaw góor waaw góor am naa liggéey maa ngi wax si sëñ bi voilà jàppal ni am naa liggéey voilà maa ngi live di wax si sëñ bi liggéey la de liggéey la voilà El Hadj Moussa Mesere Elai Musa bisiri mesere busera wala ni ken monu dar ala yen kay lan mo des moy ngeen yónnee adiyey wala liggéey la de wala mak mak mak mak mak mak mak basiro yam, wala wax tuuti liggéey lu beuri wala wax tuuti jëf lu beuri parce que El besere Moussa busera bi xoma busera Mesere eh, Bisiri wala ma ngi ni ñet yep la bolé ah wow mais eh, liggéey de maa ngi liggéey si sëñ bi nii kenn mënu si dara voilà kenn mënu si dara xanaa moo wax si sëñ bi liggéey la eh, waxal sëñ bi liggéey la ah ah waaw jërëjëfe Sëriñ Tuuba jërëjëfe waay jërëjëfe Mam Bamba jërëjëf eh, kasa kasa jërëjëf waay jërëjëf ah waaw kenn mënu kenn yaa woo woo woo woo lii lépp su mouridisme bi déggoo ware billahi way kenn kenn kenn nee naa leen yiw fu ngeen jaar ba am yiw ngeen fexe ba du ma fa tibb da ngeen di fen fu ngeen tibb su ma ñëwee ma sàq ah wow ah wow yeah la la la la la dégg ma Lamine Diop tu connais l'homme qui marche L'homme qui marche avec Moïse qui a tué l'enfant innocent, quel est son chantage dans le, dans le Torah et dans le Coran ah lol non, da ngay dem nga laaj ko ñu mu intéressé lolou intéressé wu ñu fii du ci loolu la wax ñun ci inondation Touba bi la wax tay voilà Touba 45 milliards voilà on parle de l'inondation des demi-dieux yalla su ndaw si voilà dëkk gu yiw gi Voilà, Maka au Sénégal. Voilà, Maka au Sénégal, bi soit 10 ans. Waha. Yeah, bu leen détourner sama wax bu leen ko yóbbu feneen fenen, leen ki kaay leen si lu may wax voilà 33 femmes laa doon wax bëggoo leen say wax ngeen woo xool ma maag léegi vous voulez m'amener où non non c'est faux 3 millions leen lu sa de dafa 3 millions 3 millions de personnes leen wax waaye 3 millions yoo noonu yëpp yëpp xanaa ñoom pas-pasu jàpp si ndox bi wala wala wala non nañ ko def cinq millions wala 5 millions 800 personnes ah xanaa amuñu pas-pas su dindi fa ndox bi kenn ku si nekk su a ab peel kenn ku si nekk jàppoon Japon potu potunda? ah su tibboon yóbbaale këram du bi jóge Tuuba kenn ku si nekk su jëloon ab potu ndaa rek wala butéelu 1 litre que ko yóbbaale ba si yoon ba Ndok bi lèr, nga mbaa juumoo de <laughs> daal la gars yi doo wàññi ba wàññi ginaar yeeg xolal nag yeeg néew yeeg tout le monde en tout cas seen pas-pas bi doy na waar cinq millions huit cent personnes ku nekk su amoon un litre root yóbbaale këram su fekkee looloo ñëw bokk nag ñaata millions yu fa dëkk ak boole kook sëñ ku nekk jël ab pot ah man de gëm naa ni ko ndox du fa des voilà ah gëm naa ni que ah, eh, eh, eh. da ndox du fa des loo loo loo loo kaay leen kaay leen ah kaay leen kaay leen ndax mi taalibe la daa bilaay ndox mi taalibe la de daa màggal si de raxas fenu Macky Sall yeeg mbaaw ñoom ñëpp fenu baay baay baay baay Père Noël fenu fenu kiriku kiriku bas yaa ngi comprendre ñoom ñëpp la ñëw raxas si fen yi duul yee bëri si dëkk bi duul yee bëri si dëkk bi yee laa laay laay laay cool na de cool na cool na cool na cool na eh mbay mbay mbay njaay ngoog mbay naa go baa dago kor jàmbur yee yee mbay naa go baa dago kor jàmbur yee mbay ndaako kaay naan ndoxu jàmbur yeeye mbay ndaako dëkk bi taana waay yeeye wiya tuuba ka ñe njaka doo ka maa ka njaakal njoxul njaaxe yoo xam man njox daw na ee aa ah, waay te ngon ñoo ñoo ñoo wala naam riiti ba riitil lu Oh, ano nga, kanyang madakol, masasama kanyo kay, ang mga kanyong kamafay, ang mga kumasakol niyang gor, ang mga kumakajigal, ang mga kanyang, ayayo, yo. yo Why, tu bata na, nakumuselo me, nakumuselo me, hey, why, why, why, why, ay, hey, oy, dano ay gaya gimer di joy, lo, lo, ela, nanuwa kiriku. kiriku bas Abdou Khader ana quarante cinq milliards yi kiriku bas Abdou Khader ana quarante cinq milliards ya ndeysaan ye wuuf laa ilay eh sécurité eh? nee na ko yàlla na nu sunu borom soppi a ah, wal ngeen a xam si mu leen di soppi de voilà voilà en tout cas wal ngeen a xam si lu mu leen di soppi yàlla na leen sunu borom soppi waaw man de man soppi na ma def na ma ab jullit voilà voilà ah na nu yàlla soppi si laan voilà def na ay jullit wala wala lan def na ay murit wax gi foog mu clair de voilà na nu yàlla soppi def nu lan ay jullit walla ay murit oui ay oui Tuuba alamaan nen la Sëriñ Tuuba alamaan nen la ñeenti barigo ndox ñeenti barigo ndox alamaan yeah ñeenti barigo ndox alamaan nen la क्षेत्र और रतार Ousmane saane Sané kii déglu ko kii nañ ko déglu rek nee naa la baay du nu fi wax lu nu déggutu def naa lépp mu dugg connexion am doyul xaw ma fu mu nekk saa yu kii affaire bi rejeté ko xaw ma lu mu lijjël mais nee naa la xolol ba preuve de laaye du nu wax lu nu musut a dégg te du nu fi leeral lu leer laa lay tegal genre bii rek laa xam waxam bi yëpp si lenn la ko bëgg tàggat mooy yóbbu nu si waxum léegi tëkkale kook Mouhamed nee naa la fa la jëm de fa la jëm de waxam bi yëpp suñ ko déglu woon wala suñu amoon chance mu dugg fii dina jéem a dem jéem a loqati wax yam dégg nañ ko fi ba vingt fois ku si nekk nu ñuus la sa tontu dina fi ñëw loqati daa ne xam est-ce que xam nga Mouhamed moom nangam nangam est-ce que xam nga lu mu est-ce que keek ak nangam waaw legui ki yaa ngi jari ni genre yi nii ki nga gis nii foofu la foofu la de parce que japp na ni que il parle un couillon tellement bête que ni xam nga voilà je ne connais rien rien rien rien legui nak mom moy ñew momay jangal lu bees yaa ngi comprendre mo ta moom ba mu fëlee di wax rek d'expliquer affaire am sais automatiquement là il veut partir yaa ngi je voulais nak qu'il rentre un peu expliquer voilà gis nga gis nga voilà je n'ai même pas encore fini Voilà, je t'ai dit que l'histoire du prophète, kan. il prend des histoires de prophètes, et eh, a fait des speakers. Voilà. Maintenant que Serigne Touba prophète là. C'est là il voulait venir. Moi, dès le départ ba mu waxee ma nekk wax yow lu ngay wax nekk lu ngay que dem jël andiko andi ko teg si seen i affaire wa ilaa dem jël yónente gi ba koo teg mel ni que Serigne am fenn fu ko alxuraan musa tudd daa mel da am fenn foo musa jàng ba nga nu ibnu ahmadu wala nu daan ibnu morba wala ibnu serintuba, touba wala wareva wala, au moins mom ñu mi jema tuddu ni di wax ni so lire so ci alquran di nga fek donc alquran mo len garanti Moussa muy Moses Moïse wala wareva alquran moko ga so lire alcorane alquran ci bi alquran ya comprendre yaa diine islam dafa accepter juif accepter yenen diine yeb voilà loolu nekkul problème accepter chrétien Voilà, so demee ci alquran di fa fek ni wax si insa voilà wa do fek ni wax si morba. doo fekk ñuy wax si Serigne Touba te loolu mooy seen problème léegi nag Serigne Touba boobu nag ñoom ñu ñuy def nag bu dugal ko si histoire bi dugal ko si wax bi c'est là problème moo tax ils ont de sérieux pas bëgg ne noonu nag nit ñi rabaisser seen bopp ñëw jël leen di ko tëkk di ngeen nax seen bopp vous allez vous tromper Serigne Touba amul amul ku ko mandat Serigne Touba bañ na ba ne xaadim la xaadimu kan rasulillah ab mbindaan donc nag su demee ba si ay jamono ay nitam dem ba réer ba mënuñu koo layal bëgg koo tëkkale nag léegi ab ab ab ab yonent c'est là où nga xam ne que les problèmes vont en couille voilà parce que Mohamed moom ab ñu nga ci Serigne Touba moom si boppam ab mbindaat la yemale woon boppam si ay bindam noonu la tuddee boppam mais maintenant layal ko jafe na jafe boo xam ne gars yi su yàggee saa waay dootul nekk ab xaadim mais ñoom duñ koy def ab rasulilaay si boppam fa la gars yi di lijjanti nii voilà moo tax dès de départ saa waaye di tëb di dal di expliqué kii ma toog di ko déglu j'avais hâte nag et j'avais envie mu dugg mu xool ngeen déglu bu baax nee naa la du wax leneen lu kenn déggul du wax lu nu xamul il va nous raconter de la merde yëpp il va raconter la même merde qu'on a entendu la du ko leeral même merde dof la ñuy wax fii ni romb dem jëli ji ay waxu yeneen yonent ñëw teg ko fii tëkkale ko expliqué ay waxam nag pour moom nag moom leeral na yoonam voilà pare fëgg dënnam romb verla yani. Eh. Réponds sur la question de Moïse. Man ma répondre sur la question de Moïse. Eh, eh, eh, eh. Day neex ba wëpp. Yeah. Loolu day neex ba wëpp. Loolu su la nga gëm ko. Da wala tiit. su la ko waxee nga gëm ko da ngaa wala tiit Moussa Camara teg live am teg waxam ay ay ati at kenn tontuwu ko eh ngeen wëlbatiku ñëw di saaga ek eh, ngeen réussir ñëw léegi tourner live am léegi moom teg ko en tant que répondeur voilà léegi yéen ngeen récupérer live bi si moom récupérer wax léegi yéen yéen a koy laaj moom buy toog di tontu wala yaa gen jiital ko tourner ko quoi ba léegi moom lu mu woloon wax dootu ko wax léegi yéen yéen laay laay la laa wooy wooy laay su ma tontee nee naa la su ma ko tontee rek xamal ko ni ko mooy si boppam moo xaraat géej bi voilà da leen di xaral géej bi foofu noonu fii ba ba États-Unis comme ça ngeen ñëw mën mën a ñëw fay fajal seen bopp seen naqar voilà man dinaa laaj samay laaj teg ko fii nga dem andil ma ko par une autre question ñëw teg pour défi di nga dax sa bopp de waaw dengan naksobob. Yep. Ah. Même hier, je t'avais dit que tu comptes insulter. Tu as le droit de insulter. Non, tey damay saaga seen day tey damay non heure gee jotagul rek démb kay waxoon naa leen lu ngeen ma saaga lépp lu ngeen wax lépp di keek ak nangam démb ma ba jéggal leen ko si màggal ne woon naa leen ni que tey laay koy saaga seen day voilà tey damay saaga seen day loolu jarul sax négocier jaru sa tek xel wala kek di mus lo lo depuis demb la len ko annoncer nelungan la len ne lu ngeen di saga lepp ngeen saga sama nday nak si bisu magal gi bo contane man ma djegal leung voilà tay nak la koy dajale ko ak lu ngeen di wax lu expliquer lepp dina ko dugg fo xamne mais heure gee jotagul instant gi mom foog nu wax si ndox gi foog nu wax si 45 milliards yu basirou rawale fognu nu wax si muntakha lan la nar bala ma meuna a sen lu bon ñom ñepp nak voilà tey damay saaga seen ndey ñoom ñëpp du ma saaga sa ndey nag yow yow parce que foo profil nga foo compte nga làqatu si ginnaaw di expliquer xam nga di wax yow du ma saaga sa ndey yow ab taalibe nga voilà yéen seen genre bi yéen amul problème mais seen sëriñ si tax ba ngeen génnoon démb ñëw di saaga dinaa saaga seen ndey tey naa saaga seen ndey sàcc gi kiriku kiriku Abdou Khadr kiriku Bas ñaap voilà loolu bu mu leen metti ye eh, démb fii ngeen toog saaga sama ndey ba kontaan màggal sama kaw ba doyal saa sa amoon tuur wokkante wokkante gannaaw la rek voilà wokkante gannaaw jarul teg xel voilà en attendant damaa ne Muntaxa fan la toll mënoon na wax si problème bu dëkk bi léegi na wax si problème assainissement bi nu mu joxee ndigalu Baay Faal yi ba Baay Faal yi di dóore di wote ki dagg na jox ndigal Baay Faal yi nu gas ndox bi wala nu as ndox bi lu muy xaar Baay Faalam yooyu noonu mu jox ndigal nu nekk si mbedd Tuubaa bi yu dóore hein ak i dóoree ki nangu alalu jàmbur lu muy xaar ba ne leen léegi liggéey weeg ndigal bu mu leen jox nañ si boole peel fu nu romb mu kii nu gas évacuer ndox bi ah na ko def nu mu def ba woote dajale na mun taxaa tamit woote murit yëpp nag xamal leen ni que dëkk bi taana nañ ñëw pour as ndox bi na mun taxaa gën def communiqué xool ndax gars yi na ñëw nu gars yi di ñëw di lekk see ginaar ak lekk si yàpp ndax dinañu wuyu si ñëw nag jàppale waa dëkk bi as ndox bi c'est le moment de montrer votre mouride ah c'est le moment de lu ngeen di woote ndax dëgg la si yéen voilà au lieu que d'être là moment voilà wax gi rek a fi ne mbaj mbaj mbaj mbaj mbaj mbaj c'est le moment bu ngeen nekk sur le terrain nag voilà yéen instant gi ngeen nekk sa desuke yéen ñëpp murit yu nekk kaaw yu nekk fu nekk dagg leen bi wàcc leen nu ngeen di daggee bi màggal pour dem xam nga euh, nuyu ji ay bàmmeel la keeg taxaw nu kii nang na ñëpp dem voilà ku nekk yóbbaale paan ak soo xanaa kay ba mooy loolu loolu mun taxaa mën na ko yen tamit murit yi nga xam ko yàgg loo su loolu ngeen dundee ba toll nii foofu ngeen lekkee yàpp ba mën a toll nii niin ah xanaa loolu tamit mën ngeen koo fay tamit dëkk bu leen di jox yàpp chaque année daa seet voilà man moom damay wax de voilà man de damay wax voilà mooy wax de ñom da ñoo ngi noonu ay millions leen tollu nen ni bind nen li am nen lii bon bette on veut vous voir voilà sakkan ngeen bëri ngeen am ngeen milliards def ngeen li ak nangam pas-pas bo ndox gi pas-pas bu ndox gi ba légui on veut vous voir parce que lolu c'est de ça qu'on a besoin pour enlever l'eau hein. ndox naka pour dindi ko fi halis ak nit ku doy voilà nit ñu doy yu as nox bi that's donc Ils am tout pour enlever l'eau pourquoi l'eau est là pourquoi l'eau est toujours là tout bas hein yeen ñun ngeen hein 5 millions 800 de personnes 800 000 personnes rena tout bas et l'eau est toujours là-bas xana ñoo amunu passeport amunu gatché hein ñew ci bi ndox bi ku nekk ci lon pan pot neenal ont asmu 5 millions 800 000 personnes 45 milliards sur ko jëndoon ay pel ak i ak ay kek nanga moto pompe sax la la wax parce que 5 millions 800 personnes ku nek ja ah ça way ah non mais c'est le moment de vous voir na parce que que mo am acte que mo am que mo am impact hein lu ngeen di wax di ki amul impact ñul gisunu ko nag mais lu ngeen di expliquer la la vous foutez de qui hein after the lager lagi Abdou Diané ko donc les 45 milliards c'est pour la famille maraboutique hein ah en tout cas xamuno ñan ñëw see doo parce que leer na que même la famille boutique boobu no nga amna ñu lekkul voilà ñun gis nga ñun ñu ko ni ci kaw ni yëgal ne ñen ño ñaata la daw di fëgg ci buntu yi ah, ah, waaw man man bandu baagi ngi dégg waxum 45 milliards fu mu fum mu ah man kat dama dama sey jotut kat dama sey gisu te nag xale yi nek li ni wax ni nak xam nañ ci dara nak xam nañ ci dara parce que sen xalal la ñum ñoko ko dajale xam nañ ci dara suñu demee rek ba daal di wàññi que ni matna mat na ak juroomi milliards ci si ci xaalisu tubab bi mom eh waaw waaw lolu mom ak nangam eh ki ñeent fuk ak juroom kay ñeent fuk ak juroomi milliards loolu ah jotagu na si de ah kasa kasa naa seddale gi nak kañ la yex si kan bo yori xaaliss bi am basir Basiir ah moom de moom xamee nañ ko bëgg xaalis moom moom moomay séddale moom moom moom moom moom moom ba bagage séddaleem dara jagul moom séddaleem dara jagul gisoo leen Serigne Saliou Kane les les remises des clés là bu nu naan ma xaw ma lan ma xaw ma lan Fawzeyni seen Fadalikul Fawzeyni bi xaw ma lan kii réflexion kii kii gis nga Serigne bi oto bu mu daw gis nga Toyota bi mais gis nga gars yi yow daw bee loolu Toyota ñëw moral la gars yi te gars yi cash la ñuy fay eh yaa ngi rek waaye ma da leen mais yéen am na problème ah Yeah, no problem. Kara sek miliari sa nena le séddoo bi nii day pant de séddoo bi du jaar yoon de ah we no lol dëkk bi daal lu wóor ba wóor inondé na ba si bopp bi wala gars ngi wax wax ngi te au lieu que ñu si si si gi eh ñoo ngi di top di expliqué nee neen sama genre le ni ñuy attaqué man de maa ngi nii voilà travaux inspecteur tarixiste voilà suis un nouveau inspecteur je ne fais qu'inspecter ce qui se passe that's it su su dara doxulee ma yoole génnee ñëw teg voilà kaay leen xool affaire yi cóol na kaay leen il y a yooyu voilà Je suis ne voilà yoboo nag moom na ngeen ñëw non Ousmane Sané ñi dinaa leen ñaanal si kanam foog ma ñaanal leen ma doon maa saaga saaga saaga ba kontaan voilà bisu màggal gi ne woon naa leen dinaa leen mo dinaa leen ko muñul yaa ngi comprendre ñii foog ma saaga seen day tey tey lay saaga seen doy ñi xaaral rek heure gay jotagul heure gay jotagul xaaral rek dama leen di yoot instant gi dama leen gisagul dama leen séenul nuy waaf yaa ngi comprendre gars yi doon maa xaw si Johnson bi ñoom laay collecté nii instant yi xaar ba nu feeñu ma nii ba ma collecté leen ba ma mën leen a ëwal dinaa leen ëwal tàppal leen ba pare cuubal leen voilà ñu koy xaaral rek ah heure gay jotagul instant gi nii damay seet kiriku kiriku Abdou Khader kiriku Abdou Khader la ñuy wër waaw wax tuuti liggéey lu bari Jericho Abdou Khadr waaye xam de gars yi Pape Diop man dinaa manqué Touba de parce que Touba de xam naa ni que dootuma gis léegi Touba Touba dootuma gis de nee naa leen moytu leen buntu central boobu porte boobu noonu foofu leen suul seen xërëm yi Anta tuubaa gis nga seen genre dal boobu noonu nu def noonu genre poche boobu ngay jéggi dugg suuf lépp xërëm la lu leer laa la soo fa duggee soo fa saa koy jéggi da ngay dof da lay dofloo lu leer man nag yàlla daf maa mus a jàppale musuma kaa wóolu même ba may nekk Baye Fall musuma wóolu pont boobu genre affaire boobu saa ma doon ñëw bay dugg tuubaa sa jublu tuubaa dama koy wiiri du ma jaar si suufam voilà lu ma mus a dugg tuubaa ba génn tuubaa lépp même ma nekk oto sax oto di daw xam nga oto yi duñ koy jee duñuy jaar si suufam daf may jaral ma wàcc auto bi ma wiiri ko soog dugat auto bi wala xoolal jël benen auto affaire bobu la musu to wolu lu leer la la musuma ka wul entre Touba bi seen affaire bobu nonu def non kek de lépp xërëm lépp xërëm la billahi wallahi lu leer la lay tak lu nek ci souf lépp ay fétiche ah ku fa romb ku fa tam du romb sa xel bi da ngay tagok sa sago billahi yeah lu leer laa lay tegal saa waay nee na ko yow kay Sénégal sax dootul a gis en tout cas Sénégal gis maak moom dootuma gis loolu da lay loolu moom wax naa la nee naa la may dégg ak sama wax gu bëri gii nii rek voilà Sénégal boobu bis bu ma fa bëggee wàcc moom incha allah su ma fay wàcc dinaa fa wàcc lijjanti lu ma fay lijjanti génn te loolu kenn mënu si dara voilà loolu moom mooy umpale ñeen ñu bëri voilà loolu moom moo lay umpale te su boobaa nag ngay xam ne que nekk te xamoo leen tous damay dugg ba pare xoolal filmer sama bopp duma fa live nag akama akam eh yow pour yow pour yow mooy kii akama man ay maa tàppet nag bëgg sama mbaqen de ak keg nanken damay dem xoolal def ay live différé ay live laay enregistré dama koy enregistré live bi du ko def live dama koy ense ay différé lay def ñaa ngi comprendre filmer lépp ngir bëgg jàmm bàyyi ba daal di ñibbi si fii ñuy toog di ko su ko defee gars yi di daw di ma xool ndax maa ngi fa xam nga naan ëpp fii de corniche la moom côté corniche gars yi daw fekk maa ngi fii toog bu yàgg yaay comprendre yéeneen ak yeneen yooyu laay def wax dëgg foog ne la man damay wàcc Sénégal di tambambaaloo ki di gars naa kilifa laa kilifa day def kilifa man du ma mbaam du ma mbaam Sénégal su ma fa wàccee teel a tëdd teel a yeewu génn lijjanti lu ma may lijjanti ñëw tëdd kilifa laa eh baina takawalu gudd keeg dugg si cant dem soirée lu nek ma dugg si bu tapet bi rek surtout maa nga xamni ke leg eh c'est une célébrité ah saa waay nga bëgg ko ngeen bañ ko gaan ah célébrité murit la ah suma waccion Sénégal ni murit yëpp may xamé donc ça c'est ce qu'on appelle une célébrité yeah je ne suis plus une personne ordinaire moomatuma som bop yeah suma waccion murit bu ma gis dina ma xamé ce qu'on appelle célébrité yaay comprendre donc hein? Eh, suma ma senegal ni ni wax ngay fi bëri ay garde corps lay am ba pare damay def non low profile, low profile, yeah damay ut ay garde corps ba paré xolal di làqatu yeah Non lay def ko way way célébrité celebrity non la ni def di hein su ma nak nag ba ñubisi fi nak ma partager samay vacances wala partager whatever ngeen di deewati rek c'est tout voilà c'est tout ngeen bu mu len nakari bu mu len nakari voilà yan daal na seen serigne bi rek meuna am xamni ni da sa way ngi ñëw xaaleen ba nguur gi joge fi da am liste bu am motax tax xaaleen ba nguur gi joge fi nguur gi su fi joge nu yéen xoy ndax liste bi effacé nañ ko suñ ko fi bàyyiwee ba tay nak mom wala boba nak mom su may ñew Gambia lay dem da sit ma dem sama mbokk Gambien sama mbokk Malien mbokk Guinéen da di ñibisi da sit c'est pas forcé Afrique ak beuri deuk 54 pays la wala suñ demul senegal nu dem si ñeneen ni waaw ah, de tout façon mooy loolu ah nu mu metti loolu c'est pas un problème loolu méttiwul de ñi mu naqari moom ba tax ni ko foog na ni que loolooy dëggal bàmba gi wala loolooy leeral yoonu bàmba gi jàpp ah, jàppale ni ko Moussa ngi si bàmba gi ba tey de nit sooy xëccoo da ngay xëccoo dëkk bu am jàmm voilà surtout maa ngi nee naa la soo dundee suñu dëkk yi bu nu yàq la ba pare dëkk yi nii ma deg dafa maa spoil ñu danoo spoil léegi xam nga nga tàmm nee naa la soo tambe lii ba pare mu xëjatoo si dëkk yooyu doon sooy dàqante da ngay dàqante fu jàmm ne man mënatumaa dund dund doo xam ne 9 heures ramasse dàqanteeg police dund bu am buruy bopp koñak ak nangam tàmm naa bakkan jàmm gi xam nga. yee mooy loolu eh sooy dàqante da ngay dàqante fu jàmm ne voilà dàqante diggéey fii ay at dem Sénégal vacances pour lan. nu fëgg sa noppi yi guddi bay doo nelaw sa nelaw yu jaar yoon ngi cant chaque guddi gaay lan laa fay wut eh. waa yëpp non gabon rek laay dem nag taay gabon rek laa bëgg a dem gaay taay libéré na nen libéré nen bopp taay gabon rek laa bëgg a dem booy seetetetet déggoon man Lesotho soo soxafulee mën nen faa dem wante Sénégal lan mooy problème bi eh yeah Sénégal kaay nee naa la ku la gis ngay rente pour dàqante Sénégal ah dëkk boo xam ne ni que seen i ndaw a ngi dàqante di fay ay million millions cinq millions pour jël gaal génn dëkk bi lan la lay wax baay su ma nee sama waa dëkk baay yu ñuy joxe dix mille dollars pour que nu defal leen gaal nu mën a daw dëkk bi man maa ngi daw dellu foofu du may reedi dix mille dollars laa ilaha illallah del dégg wax gi de Amérique booy wax keeg lu mu bari bari bëri bari bëri hein dix mille dollars booy ku ko mën liggéey dajale ko nii téye ko nii eh, eh, eh, ba mën koo yëkkati ne am na ku mu koy jox muy am leneen bariwul de lay lay la dix mille dollars c'est possible hmm? ndeysaan Serigne Touba daa namu wakkam yo Ndumbakile Serigne Touba da ngaa namu waa Ndumbakile man su ma demoon Gabon ma yomba laa jëm dem seeti jumaaja ma yomba dem xol ndax jumaaja tawul tamit dem setu sunu mbokk yu nek ma yomba ak ak ak Serigne su ndaw su nek ma yomba ñoom Félix hein eh, ñom François ñom François Fall yaa ngi comprendre yeah maa yomba laa am nga foofu am nay mbàkk mbàkk am na nay am te ñoom xamuñu ko am na frère ñoom frère Muntaxa yeeg frère gars yi xam nga sibunu xam nga les famille Mbàkke la am nga la famille la famille la famille Bantu la famille Mbàkke Bantu la hein yee billaay wallaay billaay baay jiili bi wax nga dëgg de billaay màggal validé de màggal validé billaay wallahi macha allah dafay am ren kay moom laay bam ngay ñaan déwéne eh? ah ok yàlla na fi amaat déwén voilà comme déwénati kay yàlla na fi amaat déwén dégg nga bàyyi bi tey voilà lu fa am ren kay moom yàlla na fa amaat déwén ah lu am si màggal gi ren yàlla na amaat validé extraordinaire waaw màggal dans le temps et dans le vent waaw ah. ya buy am dewen tamit na gëna neex bu amon ren ya yàlla bu dewen bi sa gëna a nasé ah du lol la ni ñaan chaque année magalu ren bi gëna neex bom ki magalu daw dewen kay gëna neex bu ren wala, eh. am ah, mbokk nan ñaan yàlla bu magalu dewen bi kay gëna ala ala me bu ren ren ñaata mètre cube lay lay la lii de yàlla su si doole moom dóor noq leen ko déwén nee naa leen de Touba effacé de la carte ye Touba effacé de la carte Touba ree ree ree loolu ça va problème bu résolu loolu mooy nekk voilà cas cas réglé voilà cas réglé lii ngeen waane waane nga ñaan ko fi wala nge tëkku fi yàlla ba yàlla barkeelaatal leen si rek dabo laa su tawee tawaat rek d'abord balaa ren di pare musiba naaru lay wala waxuma oh, len nak mu andil len bu melni nii ba naa dasee dolliwaat ba dewin bob dina fek gu kii souf ci gous souf ci gous ba may way yow de eh, lu la wax suuf si guus ba doppooral ba romb kay yenen bagage lay lay la la dina fek souf ci gous ba roppooral day ñew rek doli boba Touba de na la ré de la carte on va effacer Touba de la carte du Sénégal yee lay baay baay bi tey su yoboo day su nekkee yaa ngi tuubaa ba léegi nga des fa jàppale gaay si gas kanaal jàppaleel gaay si gas kanaal de voilà am na te xam ni que nag murit yëpp si yoboo nañ ko xamal nii kanaal gi moom sunu jugulee gas kook seeni propre loxo te lijjanti ndox bi nu muy demee lijjanti ko seen bopp du ñooñu yaakaar de lu nu koloo kolo jox leen ko nu lekk voilà sëriñ si moom loo cotiser jox leen ko mu nu lekk ko voilà baay baay jiili bi tey nee na ko man Touba laa dëkk booy a ah, en tout cas comme de dëkk ngeen fu nga xam ne que nar ngeen sonn waaw ah, te sonn ngeen waaw massa massa awo awo Touba mu ko waxee de dëkk bi yëpp dans les eaux waaw ah, màggal validé macha allah lii moom su ko si noqaatee foofu doo nga dëkk déwén doo too amati kër voilà lii nii nii nii nii su ko fi noqaatee mu noqaat fi lu mel nii wala mu dool si leneen ah sa sa sa baay sa këru baay te déwén moom xam naa ni que di ngeen wutu yéen ñëpp feneen fu ngeen dem dëkk ji voilà sa baay dootul am kër. Hmm, hmm, hmm, Hala, siya bo nak bo. Nangaham xamné ni kasale denye di du dekan. Kan nga kan dek non. Hala. Re denye mo ma su ngeen gaawle dé né na le mom dewen mom. Yow so bop, yow so bop du lay dalal. Yow so bop si ñu ni dalal ngay bok. hmm Hala, neexut nak wax gi neexut. Ya Hala, ku mu neex nak nga tepp nak yobbu ko fu la neex. Ante delu ma la waxa fi ne. hmm Li ni mam yalla gi def ren. su defaatee déwén lu mel noon de waaw ah. yow sa bopp di nga wër fu lay dalal aha loolu moom leer na ma hmm. parce que leer nee naa la ko Touba moom dootul nekk dëkk ba ngay am fooy dëkk boobaa di nga wër di wut fooy dëkk ak i santati di dëkk ah ah leen wax nee na lu man di am bëgg naa ah am noonu ñun tamit bëgg nañ de ñun tamit de xuloowun lu man di am bëgg ngeen ñun tamit lu mën di am di leen toog fii di si wax voilà lu mën di am daal di leen toog fii di si wax di si woon di si a ah, suñ si reetaanee nag tamit nag bu leen nu naqar voilà bu leen nu mere parce que dafa reetaanu dafa xoromu voilà lool tamit kenn mënu si dara fii la ñuy toog di ko bëggee di leen reetaan ba pare ki mooy dafa xoromu kat daa xoromu de Lol, nag tamit nag mooy loolu yéen ya, nu ngeen kan ko nanguwee ñun noonu leen koy reetaane noonu di si waxtaan voilà mënoo leen nu koo tere nag daa xoromu lool ay punkalu di koloo koloo di dundee di leen lekk nii nu doon ay mbaam nu nangu ko toog dafa reetaanlu voilà daa reetaanlu nga gis ay punkal doon mbaam yaa ngi comprendre c'est drôle voilà siècle kii autant pour moi vingt e siècle voilà c'est drôle moo tax nag di siwah, wala. voilà dinañ tok di reetaanlu loolu kenn mënul tok kenn mënul tere moroomam gis ay mbégte mu koy ree daa seet voilà waaw yéen nu ngeen si tok do mu neex la ngeen daa bëgg ñun tamit nak noonu la ñuy di re wa xool leen baami voilà yéen ngi ba paré di lour voilà ñoo am dekk bu am ay mag yu baax am yey kiraama mën yóbbu ay nit aljana ba pare lóor mënul dara ndox bi voilà ñongi ngi tëkkuwante ki di wax ni ay milliards leen wala ay millions de personnes leen te li jënti ndox bi mu jóge fa waa xeex mënoo leen ko téré voilà parce que si ngén ne ah mënoo leen koo tere hmm 45 milliards mu seey eh ba ta mu jé mu jé fi ni wa ñu bëgg nañ mu munti démé bëgg nañ ah ah mais lolé messi lek ko bëgg lolé foog ko doon messi foog ko doon ab doom ak léegi nag ci suñu dee ba gis yu xoromu yooyu mooy nit ku nu gans di lay teg di lay keeki daay mooy loolu foog nu reetaan parce que ñun leer nañu ko kenn duñu ko defati voilà léegi nag on va le rigoler on va on va délecter on va s'en partager voilà Serigne Touba kenn du ko ko def eh eh Serigne Touba am yooyu kenn du ko def eh maag sama mousaillon yi kenn du ko def donc mooy loolu yeah saa waay nee na ndox mooy lan ah ndox mooy inondation de waaw mo ay anda kolera, kolera mo ay siburu siburu mooy nu koy waxte ak ak arbis mooy lan apre mooy lan hôpital hôpital mooy danoo bëgg a faju après faju tamit nag wala garab voilà wala garap. wala nga jar voilà wala ngi Wala, lépp daa am ah c'est sen, sen, une succession de wala sen un nama, de ñëpp day am lu mu ànd xam wala Wala, wala. c'est comme si nu màggal nu naan màggal mooy lan ngay toog sa kalam waa màggal yiw waaw sëñ bi ñoo noonu tamit ngay toog naan ndox bi ne la ndox nag tamit mooy siburu voilà ndox mooy choléra ndox mooy degol ma la wax lu mu àndal a bëri la ilaha illallah ndox mooy après la màggal ñëpp feebar ñëw toog fii di jooy ah na hôpitaux yi waaw diw waaw woote fee yónnee ma dama kii ah way ndox bi de lool loolu day ndox ndox gu bëri gu taa loolu day kii yeah laay walaay loolu day ndox yaa loolu daa lay ndox ñun daal man damay ree dëkk bi taana voilà gaa yee ngi xuus te ku xuus xaas voilà ndox boobu noonu nag naqari ba nga naan nag ndox mooy lan mooy lu ngeen cotiser woon ay milliards pour doon ko fi jéem a dindi voilà far milliards ya seey waaw su fekkoon ni que nag méttiwu leen wala loolu lu tax ngeen di cotiser di viabiliser bu leen viabiliser dëkk bi voilà su ngeen viabiliser rek da leen métti léegi nag viabilisation bu doxut nag tamit nag nu ah yéen nee naa lu ngeen di kaañoo ki di ree dina leer si bopp nit ñi de ça va être clair dina leer ñun de si loolu leen nekk voilà loolu leen topp ah gars yi de bëggoon na noo defaru voilà nee na dañuy tëkkalu nee na ni ko màkk tamit daa ngelawoo ne ki def na noonu ma da leen màkk de daa viabiliser milliards am yi rek de ko day taw ndox bi di dem voilà si ab dëkkub désert dëkkum désert voilà day taw ndox bi dem voilà yéen nag moom ah da na mer di ngeen mer de yéen nee na di màggal muy taw moo neex waxuma la neex rek neexaay bi balaa nga kaa xam nga ñëw laay fu musa Camara foofu rek la ngay xamee waaw waaye waaye de nee naa la vidéo yi moom neexaay bu mu won mooy gars yi mel ni bu bolt waaw ay bolt da ngay gis kenn taxaw fa xaar fa de gaa yi de taxaw nu ko si màggal gi moom waaw ah, si ngelaw gi màggal gi ngelaw ah, ah, amul de ñëpp laal li bagage fu mu neexee moom si live bi fii la neexee ak i commentaire voilà wante de foofu noon biir Touba ah gaa yi de taxaw nu si ngelaw beeg foofu noonu di ko fa xaar kenn taxawul saam ko si si taw bi ak ngelaw boobu doon tourné bagage yi di naaw kenn xaaru ko fa gaa yi ay yu génn yëpp ay nit yu laal la ay tànt yu naaw voilà gaay di jaar ni gu ñuy jaar neñ lepp jaxaso police yi nu bayyi won sa ci tali bi bokku ci tammi xol fu ñuy laqatu de lan fi am ah lol de lan fi am wala ay uy sa lol su de xol kay tok ci bedd bi su de xol ngeen tok de neena len billahi wallahi eh eh waaye fi rek la ko gaay di waxe fi rek fi rek de aw aha fi de ngeen koy jooyee yeah no euh, ma dem ba man xuloo ma ni ko ndox bi du xewal man kay dama nangou ni ko ndox bi xewal la xewal bu mu don xewal motax tay ni di wax yeah mais sa maa ni que nag xéewal bi gars yi ñoom seen bopp nangu nu koo xéewaloo voilà ndox bi kay nee naa la ñoom ñëpp lu nuy wax loolu yëpp ku nekk si tibboon kaas yóbbu këram ndox gi day cinq millions huit cent mille personnes kay leen wax ñoom boom la ni lim di ku nekk su yóbboon ab sio wala ab kaas su tànkee yóbbu ndox gi wàññeeku si dëkk bi voilà ah ban loolu laa wax de xéewal gi kay bañ ma xéewal nag des na koy séddee na la ñuy séddoo xéewalu ndox bi nan lay demee yee mais ñoom bizarrement xéewal bi ba mu leen dalee daaw dawaa leen dawaa gee danoo dalee xaalis bu bari pour ko ren bu mu leen dalaat wante ren bizarrement xéewal bi xéewalu na leen de xale xaar wuyaay man kay xulóowu ma ni ko du xéewal voilà eh? xulóowu ma si de eh. waaw maanaam mooy loolu jërëjëf Sëriñ Tuuba màggal validé waaw départ bi duñ doon xuloo nee naa la di kii nee naa la lii lii ku ne màggal am na ren xam nga ni que da ngay wax lu la neex rek màggal amul ren de loolu am seen bopp xam nañ ko ku ne màggal leen ren xam nga ni que mooy dañuy wax lu leen neex rek yaay comprendre mais garaawul booy loolu yaay comprendre xam nga ni que comme moom la honte ne tue pas hein La honte ne tue pas Mourit. Hein? La honte ne tue pas Sénégalais. problème n'y a pas de problème. dina leen nangul seen màggal sa day fii nekkoon di defante de ah wow fii leen nekkoon di defante au lieu nu waajal inondation yi dem gas kanaal yi fii nekkoon si réseaux sociaux yi xasante ak saagante voilà si lu simple leen laaj voilà lu nekkoon di xasante ak saagante ala ya na wanna nak yalla ay fajal len ko ci ne man de neena mu dar dar ma dar, dar dar, dar dar dar dar, dar dar waaw de de de ala yéenay def da man may gis ni wax ala saa waay neena ko me musa du yele 5 millions ki ki ki a compté ça ah les forces les forces obscures am nga ñom de nom seen ni neena la dañuy compter deux par deux ba pare dañoo am seen i bagage bopp murit daal moome mooy loolu quoi yaa ngi comprendre voilà murit souvent koy kii rek bu waxee ne euh ak wa France 24 génn na nee na trois millions ñoom li am génn nañ compter nañ cinq millions huit cent yaa ngi comprendre xaaral ba suba suba dix millions lay doon suba sénégalais yëpp a demoon abdullah ko wa ana borom di jou layla abdullah ga yow laaj nga ba laaj nga wo yo ko fàtte woon ko sax man fàtte na sax fan la tollu won si compte gi borom di jours ya Robert Robert ko ma da ko ko da ko boole benen ci gi ak sa gaaya benn la sa gaaya rek am nga yoy jot nañ si yu bëri kenn la won si gaaya voilà có phát nào còn đầy sẵn đó là cái ảnh mới luôn cái ấy vagabond lên ấy vagabond ta về đây ra ubli esa cả mình mình có phát cho nào sẽ kristan nào mình đi đâu kubeng man bagana joko kubeng man bagana joko bisa mana eh do marami ana gen fan ngeen tol doyal gen eh fi da leen mujjee dooma xaraam yi waaw bëgg nañ waa nena ndox du dara waaye ki waaye neena la de euh so jelo xara ba ci digg bi xara li départ bi lek c'est parce que dañuy soog torox mayaat len quelques weer léegi wax gi changer wa ila nu ñewon quelques mois en arrière lenen de la wax wa ñun bay du sunu milliards na na na des amna na tout dernièrement samay lay su ngeen di xol sa suuf di sunu hôpital bi xolal sunu li wa ñun du liggéey assainissement won la ay oto yo yoo ane bu depuis plus de 15 ans même Ya yaay comprendre mais ñom ils sont toujours dans le délire so waxé ne la ñun de ñun Touba mom lu fa amul fen Touba loolu leen doon tiitaroo parce que xamuñu woon ni ko du leen nax boobu ba léegi du naa leen yéen ah yéen a ngi topp ñooñu da ngeen naan kii lii ngeen di wane lépp ay la xaar leen balaa ngeen di xam ni kay dóor la jour bu leen di soxla jour bu affaire yi wala génne nekk si mbedd bi do kenn du ko gis voilà ah non ñun jërëjëfati eh, eh, loolu da leen fi nekkee nekkeewul voilà waaw kaay leen nu wax si 33 famille ki na ñun moom taluñu loolu yéen a nekk foofu na ñun du ñuy liggéey voilà ñun suñu cotisation gi defar suñu dëkk gi leen tal si loolu leen ma naa ngi comprendre ma wuyu si leen si léegi nag ils ont ils ont ils ont mal au cœur ils si lu tax ma wuyu si si lu ma woo voilà parce que man 33 femmes ñett yu bokk ndey ak baay ak demi sœur si yooyu laa doon wax ne nañ si yeewoon te nañ jéem wax si suñu diine gars yi ne noonoo non si laa jàngu ma kon xaw ma man du man maay leeral diine bi naa noppi dem lijjanti ji leneen léegi nag ñoom si lu ma woo mooy ni que man. damaa nekk ànd ak ay nit ñoom daal loolu seen problème ils ont cherché à a trouver d'abord bi j'étais maak waxabitee ànd départ bi nur kii tourné di ki léegi nag jaayante diggante mbaga ah ñun de ñun waaw ñun de moom liggéey lu bari wax tuuti la la la sunu milliards yi sunu lii waaw ñun sunu wootee sunu kii voilà léegi nag soo leen nee loolu lépp ay dóor la c'est du blabla nu nekk fi di tëb dal moo ngi nii c'est le blabla parce que nee naa la sunu wëndeeloo def noonu loolu lépp fu yi wala feeñee so ñëwé né leen bo lég nan la won résultat kenn du ko won yeah kan kenn kenn kenn du la won résultat voilà tay jii ni lég nañ won résultat lé résultat inondé wa lég bëgg nañ wa metu dara wa ndox wala la ah waa fa fa ngeen mujj aral ah, tuti affaire bi robbu bo ndox bi xawal ki tep tepal tuti ni ba nu woo leen xel comme ba gars yi bërëngu bërëngu waat ñëw toog nga xool leneen la ñu wax ça va de changer waaye ñun faaloonu leen tanuñu leen waaw ñun mom liggéeyal sëñ bi ñoo moom suñuy milliards waaw ñun Touba duñ koo liggéey lu fa am ñoo ko def état amu fa kii ak nangam léegi nag nee ne état liggéey liggéeyam tamit yaay comprendre état ak nangam tey cotisé woo leen Touba du fay impôt Touba fayul dara ba pare nag ñoo ngi jooy nee na état ñëw canaliser te nag nee nañ ñoom dañoo am seen titre bopp te ñoo ngi dajale seen i milliards tamit bu waloon dem si kenn du comprendre murit nee naa leen c'est les c'est la race la plus confuse au monde voilà bu gën a confuse au monde murit sax moom si diggante ndeyjoor ak càmmoñ ñoom dafa réer voilà ñoom ils se ils se même seen ndeyjoor ak seen càmmoñ des race bu gën a malhonnête des malhonnêtes malhonnêtes de la pire espèce lu leer laa lay wax ay vrai malhonnête Qui nous comprendre tantôt ñoom seen bopp qui nous kenn ku nous waaw ñoom ñooy liggéey seen De am titre foncier lu am si dëkk bi def te pourtant lu am si dëkk lu chaque jour ce président lañ President santé président President koy inauguré président nous de pour que nous jël l'argent du contribuable defaral ça. Hein? Abdou Djanen a une fondation ah, une fondation fictive fondation fictif Soxna Baali Abdou fondation fictif bu kenn xamul lu muy liggéey voilà ñun ñoo may fond dëkk bi la gaa yi amay fondation yi kenn xamul lu ñuy liggéey voilà fondation boobu nag mën naa génne ay millions voilà fondation bi day dajale ay millions de million mais kenn xamul c'est quoi le but de la fondation kenn xamul lu muy liggéey xam nga sa Marème Faye sa faire na semblant may ay matelas xam au moins elle a fait dugg si yenn banlieue bi quelque temps maye fa matelas pour que ñu ne maye na fii matelas maye na fee matelas day jàppale jaa bi après mu yemale ko foofu yaa ngi comprendre voilà léegi nag maye soxna baali pour nga daal ne moom fondation bi day maye mbuusu ndox wala mbuusu crème wala ki waree ba sax kenn comprendre lul de voilà am na daal fondation mais man daal fondation bi lu si ay tànkam ak lu muy lijjanti sax moo jaaxal nit ñi moo jaaxal nit ñi de waxal nit ñi daal xamul fondation yar ganaar la fondation maye ndox wala fondation waree kenn comprendre waaw moo ngi noonu blanchissement d'argent waaw yooyu yëpp léegi mu jeex léegi mu jeex muñ leen tuuti rek léegi mu jeex tout cela va finir waaw nee naa les gars association de malfaiteurs association de malfaiteurs ay vrai malfrats Sëriñ Tuubaa nee na ko soxna baali ay kàppoot lay may ma ne ko mbete kàppoot yu bën daa mel ni kàppoot yi doxut de wala wala wala mauvaise qualité bi lay may parce que booy dooma xaraam yi ngi jur rek dooma xaraam yi ngi jur rek Muhammad el Rasul nee na ko waxal si jabaru sëriñ si di xeesal ah jabaru sëriñ si di xeesal kat nan la ñuy def nen gumba rek sama waaji maanaam ni que gumba kay ñun gumba nañ ba fi taalibe yi nañ ànd ak yu gumba nañu sol ay noir fumé ta fat suñu bëtt ah am nga am na yenn moment yo xam cataract da ci bax de yee yenn saa ni nii nu yee ban kay yo la ga daan xéssal rek souvent naturel yi eh non mais moy lolu mais tamit nak ku ci ñak fayda bu nu mur sa jabar wa ila nu sodom. sa dom ñom sen bop sen jabar yi kek nangam bi do ya xama eh? that's it ala c'est tout de toute façon ñoom seeni jabar yi bëkk neeg yeng si taat bu baax ñom tamit ñuy taat si jabaru jamburi seini c'est une histoire de taataale taataan ke seen bop quoi yeah my lord, de mom mom moom seen la quoi Seydina Diop ne la ko da ngay wax ba xëy dee mais waaw loolay àdduna loolay dund de waaw nit ku si nekk moom yàlla da laa sàq da ngay dee te du ñuy wax ba xëy dee loolu kenn mënu si leen sëriñ Touba daa daw ba xëy dee yaa ngi comprendre yàlla man may wax ba xëy dee keneen toog di déglu ba xëy dee eh, ñoom taa Serigne saa ngi doon di xëy xëy dundee nit ñi ba xëy dee loolu amul problème bi xëy dee bi kay moome eh. bu mu jaa bu mu jaaxal kenn du jaas bu mu jaaxal kenn ku nekk dina la fekk su lu nga nekk wala nga xëy dee wala man nak mom xam nga ma wax ah yàllaa ma ko nattoo wax mom mom mom mom la laa fi dese voilà wax mom man naa ko tabaarkàlla macha allah léegi nak damaa xamul ndax da mako ma koo bëgg a wa ila nu mu demee non ah voilà xëy bi mom mom, ala kulli nu ñëpp dinañ fa jaar voilà dinañ xëy dee bu kenn tit bu kenn kek nangam kenn du immortel serigne su ngeen yaaka sa dafa xey xëy dee hmm? Abuja ma question 33 femmes est vrai ou bien ah ñom ñoko wala lera ñom dal ñoko ko lijjantil seen bopp ñoo ko recensé ñoo lu wor ba wor da dom yeengi taxawal wala voilà wax domi fu nu jóge 66 gosse dal ñoo ngi taxawaalu voilà te lu si wóor ba wóor 33 yëpp biir tamit voilà man daal loolu xam naa ko si léegi nag ce qui est vrai ou faux man boobu ba tey bàyyi naa ko seen loxo ku si weddi na jël list bi nen ma supprimer man damay xaar ba ñoom nu garantir seen bopp lu vrai ak lu faux bàyyil maag lu vrai pour que a mën a def ak vrai yi faux yi ma ñëw ne la yéen ñëpp ay foo ngeen woon yee Nora Natou nee na ko est-ce que tu mais Nora si je ne travaille pas nan laay jëndee connexion Nora soo bëggee xam ndax damay liggéey da ngay xool sama leneen live live naa fi liggéey kaay yeah su ma du loon liggéey man maa yore som bopp de xam nga man samay waajur depuis ñaat at ñoo ngi dee ah juróom benn at juróom benn at aw man ma ndeyaw ma baay fii nii ma fi nekk nii maa fi nekkal som bopp de nekuma fek nday nekuma nek bay ba pare nak nek fek ay rak ya ngi comprendre ay rak yu ma wala surveiller di tek beut waaw suma ma lo loolu la duma fi survivre de motax tax la yenn wax dof yi ne sax su ngeen demee ba mu wala mën dugg sen bop moy lu leen wala war naa tollu a à un niveau ba mu leen di doflo voilà ben at duma sax ma ngi fi état non ban ben at man sama sama sama yeah sama yaay ngi gaañu deux mille quinze sama baay tamit gaañu si presque yee yee sama baay tamit gaañu si deux mille quinze bi yooyu calculer boobu ba léegi maa ngi fi maa ngi dundal sama bopp de chaque jour ma connexion yee yore njaboot foofu Sénégal tamit yee nee na ko très bien say waajur tekkiwunu dar ah waaw man samay waajur lu nu tekki yëpp maa ngi siy jëriñu de voilà samay waajur lu nu liggéey lépp man moom maa ngi koy gis comme nu ma koy waxee loolu yow amalu la njëriñ amalu la njëriñ samay waajur jurunu la voilà lu nu tekk loolu du feeñ si yow man su ma ñëwoon Sénégal du ma loué man Sénégal du ma fa loué fii États-Unis du ma loué eh nee na man maa ngi Sénégal te maa la tane soo ma tanee danga samp say bopp lu leer laa la wax so ma rek sam da nga samp say bop xolal mo may la benn gis nga fi ma tok gis nga li ma jakarlo ni ni ni rek yaay jël li ma jakarlo ni ni ni ni rek neena la ñaari atu dépenses sa bay la bini nini nirek ni ni ni rek atu dépenses sa bay la waxatuma la ak table de message waxatuma la ak ñaari baful nak ba nga boole ko sëb yaa ngi dégg voilà ma rek nga samp sa bop auto bu may dawal oto bu may dawal wóor na ma ni que sa baay mënu koo war yaa ngi comprendre c'est pas nag dara ñun lii tegunu fi quoi yaa ngi dégg aw ma dara nag ab jaam laa ab mbaam voilà mais sama baay sama ndey du maa liggéeyal de fii nii États-Unis du ma fi fay luwaas voilà immigré laa bu dul fay luwaas damaa ñëw fekk ndey liggéey ba pare ba teg kër Sénégal foofu tamit su ba fa wàccee du ma fa fay luwaas de au contraire sama xaalis day juge Sénégal di dugg sama poche yaa lu leer laa la wax voilà Somata nerek sampu sobob. Luler lala tegal. Somata nerek sampu sobob. Arol mo malo kowa. Mhm. Digo joyo joyo joyo joyo joyo joyo ben nakar luku. wow, Joy ben nakar luku. Yai dek. Kike esa ki. Air bumi upu sang mai wahak yo. Kolo fumi juga. Yai dek. Wala air fre. Air fre lala yai Ya, ya. Do aw madara dara nak mo wah. fayal ala wax deug fa yalla nak mom awma oh, dara damay soko dor damay tambal rek di kandang wante lu wor bo wor ala mala tane de ma tane sa male gën ñom ñep wa ah, lolu man wornum wa ah, lolu wornuma lolo nak de lolu nak nak su ngeen sañon nak ma torox mom ngeen ma yene voilà mom ngeen ma yene su ngeen sañon ma torox pour ko ngeen ab deug ci man ngeen yëkkati seen sëriñ bi mais heureusement lii la yàlla dogal yaa ngi yàlla daa dogal ma judd si ndey baay boo xam ne juru nu ma yaakaar ma yaa ngi comprendre daa ma yaa wala màgg teral nu wala yaa wala dem non non ñoom doon maa jur ba pare waajal ma yaa ngi comprendre xam lu leen war si man def ko voilà déggoo ma de parce que xeetu baay ba boobu laa jël voilà man sama baay daf maa liggéeyal sama ndey liggéeyal ma xaaruñu dara si man voilà xaaruñu dara si man sama baay musul toog ba naa ya ya ma wala liggéey yobu ma mak wala yama wala teral billahi ngala ah lol mom yalla ko def su ngeen sañon nak moom ma ma ma torox voilà su ngeen sañon ma nek ap nit ko xamne damay souffrir pour que ngeen da ne woy serigne be ma japp wala parce que dama wax si serigne bi motax ma mel ak nangam mais neena la xolal jam ak salam chaque jour damay jam ak salam wala jam ak salam affaire yi di gën di neex di gën di yokk Tabarakallah, Masya Allah. Ah, wow. Ah. Lolol moom moom lol moom moy leer nee na sax amna ñu yu no no ba Senegal amna yow la wax yow ya wa di tekk sa bop ak man te man nee la ma duma dara man ab jam jamat la da ngeen am lu leen naqari ngay diko tekk wonte ak man voilà yow ya ñew bëgguma gën voilà ma ne la nag man yow maa la gën gën sa baay waxuma sa sa sëriñ voilà sa askan ñoom ñëpp maa leen gën voilà léegi nag soo demee nag ba nga bëgg woote naan Sénégal sa boole sénégalais yëpp génnee ko si voilà génnee si murit yëpp maa leen gën voilà foofu laa ko yemale voilà léegi ñeneen ñu nga bëgg nag jël teg leen nag pour nu daal di ñëw wuyu la wala nga boole leen si suñ si bokkee a leen si boole de waaw man murit yi laay defanteel voilà leer laa la nee na man aw sëriñ doomu lëfal ndem bi nga taf kan la nee na koy ma mission ne yow xaaral rek yow xaaral rek léegi seen heure jot voilà live bi léegi seen heure jot des nay quelques minutes noonu nga daal ba ay waxu j'ai pas de sëriñ arrête xaaral rek di nga xam ndax am nga sëriñ wala amoo sëriñ tu vas te en partai prop de trima te billahi man menala, menala na watal. Menala na watal eh? da mën naa leen tout ce que j'ai de plus cher fayda rek moma ma hein. ak kon ak bëgg te ki wax gis nga li ni di tont ni booy la boo xam ne ni ko jongongo jongoom wëragul lu leer la len di wax Li ni di wax di commentaire ni ki di expliquer ni may tonton tel ni. Boy lo bo ne jongom wëragul yaa ngi comprendre booy bu ndaw moo toog xolam ji ak jongoom wéragul mooy commenté noonu lu leer laa leen tegal voilà mais man maa ñàkk fay la rek comme ni ma koy waxee chaque jour leer laa tegal booy bu ndaw moo toog noonu di commentaire voilà ne ko amoo cottu ndey aw ma dara de billahi wallahi je n'ai dara awma ko mais maa leen gën de maa leen gën yéen murit yëpp otaak su ngeen dajaloo sax maa leen gën voilà dara nag aw ko maa leen gën de yéen ñëpp tous au carré tous waaw dugg leen xaw la ñaan ma torox mo gën si yéen mënoo lay ñaan mo toroxé na mun na la jënd yow ak seen wa kër eh? oui sama de eh, ok legi legi lo lo ko bay jënde di jënd xam la si sas sas na la si ñentu moto pompe nga yobul ko sa wasila ñentu moto pompe voilà lool loolu sas naa la si ñeentu moto pompe nga yóbbul ko so wasila voilà yee uy saawaay day saawaay yaa ngi jooy de soxol a ngi jeex de voilà léegi nag da ngeen bëgg a defat woo gaay nag nga ñëw nga defant voilà léegi nag kaay leen ngeen defant comme lu nga koy waxee rek kiriku kiriku bas Abdou Khadre wal na noo dimbali quoi parce que li muy def Mauritanie du dëgg du yoon lii lépp moo ko yóbbee Mauritanie ah tax na ba gars yi dof ne nii nii nii nii doo xol yi di xën njëññ Bass Abdou Khadre war ngaa commencé liggéey dëkk bi nag pour que murit am lu ñuy ndamoo parce que gars yi bëgg ne noo am lu ñu ndamoo nag mu tëleen gars yi léegi si biir nag léegi ndamu bi mooy du ñuy jooy gaa yaa ngi yuuxu gaa yaa ngi jooy gaa yaa ngi siisu si léegi ndamu bi siisu xol baa ngi dee bas bas defalal dëkk bi murit yi mën a am lu nu ndamoo billahi wallahi lii gàcce la de voilà parce que su gaa demee ba léegi man Moussa Camara maa def ka ah bas Basiru il est temps nag voilà il est temps de ah, ah, ah. dee je te connais très bien tu me connais bien voilà doko nak jo kone ko chu kone ko kone kone ka la baba do kone ko chu kone kon kone doko kom ko sa la kone sa bal sa rega tout le monde mo kone yeah lolé wa que c'est encore un de plus qui mo kone man may musa connaissance tout le monde mo kone néna le may kuy anté seni nelaw man may kuy dugg seni bi rêve di fol xolal di ko yëngal li man may tour bu nga xamni ke dang kay wax muriti lu defaraat sen togaay billahi maay dooma xaraam buy live gars yi romb Elhadj Moussa Camara ngi si live bi seen xol yi di fët-fëti waaw ah, wow je suis le père de la ñuuxintans l'indisponible l'indispensable maa ngi ni l'homme fort billahi wallahi waaw ah, loo fa wuti woon ah ah non tey nag tey nag foog nu déglu loo fa woon xaaral xaaral ma tegal leen ñuuxintans ba pare nu daal di soog a dem tey du ñuy dem à à mode ñuuxintans xaaral ma taal machine may la ma ma taal machine yi ñu déglu ñëw xintaas tuuti voilà lu lu loo fa wuti woon lu loo fa wuti woon loo fa wuti woon ñu xintaas ñu xintaas ñu xintaas ñu xintaas ñu xintaas ñu xintaas xale bu dem si ñu xintaas loolu eh, am na lu waaye yépp dañ nu koñ nu koñ nu koñ taas le fawuti woon le père de la ñu koñ Ana yung kwintas? they all a bit selfies. Yeah, that's a walk so with the benefits. Duke can't want duke like jam. Move in the top of Beno Dog Jam. Tap, row, tapa, row, raka, now more than a cocky row. But a benefits, ragal police. Kenu luggage. Hana colo colo, long colo. I need you like ya pegolo. Fist. Yako taili showbiz la. Bien daw balagay ni lo showbiz la. buuru tax na raay seesi pax yi yaa yi nu wanoon taxawal fi ndaw si moo si taatu xale yi loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon Before you went, before you went, before you went, Morgan fiction You can't get this on purpose, it's been an notion They have a dog, but it kiss face Benefits me, man need to but Bunu something you hoop boy Yako for no fight yo Dom, kulo ton yako sabay They non request, now correct Nu çoğunu gene dönü Yarısı vakti bari Like lane, funu gene mami bari Yaren, kedi rabam baki bari xaw ma sax lu tax coow li bëri Moussa ana booni boobu léegi gars yi dina laaj ana booni nekk to toolu booni ñoom Tuuba day topp mel ni ay robocop cop cop cop ay misi ay misi lu fa wuti woon lu fa wuti woon lu fa wuti woon lu fa wuti woon lu fa wuti woon lu fa wuti woon lu fa wuti woon lu fa wuti woon lu fa wuti woon lu fa wuti woon Orang dong, ini c'est comme si ça y a c'est c'est ndeysaan saxa gaay ñuuxin taas ñuuxin taas a ngoog koo koy ñuuxin taas loo foo wuti woon loo foo wuti lu dangay daaw dangay daaw wee lu leer la tega yee eh, aboo lu leer la teg laa lay teg nii ah en tout cas soom bi dal na yeah lu leer la fa wax ah loo fa wuti woon loo fa wuti woon ah ba ngeen di mer lu ngeen fa wuti woon ah mais le gars il est fort le gars il est fort yeah oui billahi ah so so so bi so gaan bi so bu am kilo la quoi soo bu am punch la quoi billaahi nee na nee na nee na gars yi nee na gars yi euh, nee na doom bi kay euh, demal bu la kenn tooñ tooñ ne ko sa baay day naan réclassement ko res lu coow li gën a bëri laaj leen fu ñu jëlee ay maam yu bëri eh nee na ko fan njaareen wala njaareen en tout cas hmm, gars yi jékki-jékki nekk waa mais Moussa ana booni mu ne leen ah nekkete toolu booni ñoo ngi Touba lay la saa waa ji lu mu wax ko kii kii kii eh kii kii day tooñe ah ah waa waa eh ah ah ñuquñ taas ñuquñ taas ñuquñ taas man c'est que looloo ba siy faj quoi la ñuquñ taas ñuquñ taas ñuquñ taas loo fa wuti woon loo fa wuti woon loo fa wuti woon ñuquñ taas ñuquñ taas ñuquñ taas loo fa wuti woon lofoutuon kii mooy m hymne national des Moussaillons lim national de des Moussaillons moo nekk nii wallaay wallaay lim national de des Moussaillons laa ñu xintaas loo fawti woon yeah, gundeng dëggën li danga ko wala sax jaay ko def version version kii quoi version sabar comme que Sénégal yi dañoo bëgg sabar rundëng ndëkk takk takk takk gundëng ndëkk takk yee yaaw rythme bu demee noonu ñëw teg ko fa rek teg ko yee léegi nag il est temps maintenant de